على من علي ولا سسدي له كل حال من هدايا مدي على من علي ولا سسدي له كل حال من هدايا مدي على asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ni leen ko waxee woon ci suba dañoo xëyoon ànd ak màggal TV fas yéene indi lépp lu aju ci wàllu wàccaayu màggalu Touba tey nag di fukki fan ak juróom di gaaw dëppoo gàddaay gi atum junni ak ñeent téeméer fanweer ak juróom-ñaar ci gàddaay gi. mu mel ne commission culture bi nga xam ne et communication su commission intique ñoo dikk doxantu ñëw fii ci exposition bi nga xam ne naka jekk at mu ne ñu ngi koy waajal. di ko di ko di ko tërale noo xam ne képp koo xamante yaa ngi bàyyi ko fu sori ak noo ak xeet woo mën a doon ak foo mën a bàyyi ko boo ñëwee njàngale mi nga xam ne taxawal nañ ko fi boo ñëwee bunt bu ne da nga ci mën a jaar ba xam dëgg dëgg màggal gi ak dëgg-dëgg ki nga xam ne mooy sunu yaakaar tey di Seexuna Ahmadul Xadim mu mel ne fekk nañ euh, feggoo nañ ak sëriñ Assane Mbuub di superviseur boo xam ne mel na ne lépp lu aju ci wàllu exposition bi ku fi dikk dana la mën a leeral li nga xam ne aju na ci wàllu wàccaay woowu kon sëñ Assane mel na ne Magal TV moo ñëw bëgg lenn ci ay leeral ci wàllu exposition bi ndax gis nañ na ren ay jéego dox jéego am ngeen ko ci yoo xamante ni ku fi daan dikk at yee passé boo fi ñëwee di nga xam ne ren liggéey bi am na ay tànk kanam yu ci feeñ. asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziar bu baax euh, Magal TV. Mhm. ci teewaay bi ngeen teew fii ci grande exposition sur le mouridisme bi nga xam ne. Mhm. Euh, daayira bu Tarqiyyah moo ko ànd ak euh, la comité d'organisation du Magal bi nga xam ne Serigne Cheikh Bassirou Mbacké bu Serigne Abdou Khadre moom moo ko jiite. Euh, alors que ki nga xam ne mooy commissaire exposition bi nag di Signatou Diagne li nga xam ne moom la liggéeyoon ak comité scientifique bi mooy nan la ñu war a fexe ren ba dox ay jéego ni nga ko waxee yu jëm ci kanam waaw jéego yooyu jëm ci kanam nag bokk na ci espace bi nu ñu war a fexe ba mu am visibilité maanaam yaatu. waaye nu mu war a fexe ba nit kiy dugg mu am cawarteg xool ji njëkk sax muy xam liñ fi def loolu bokkoon na ci bokk na ci yeesal yooyu tamit muy maanaam fexe ba euh, ñi nga xam ne ñëpp dañu fi ñëw te boobu bàyyi ko ci ay gox yu bari te li ñuy làkk wuute ñuy def euh, traduction simultanée ba nga xam ne loolu it matériel bi teg nañ ko fi ak ay interprète arabe français anglais italien wolof espagnol yo yep tay jii am na xamne xam ne seen la. xam leneen luñ ci doli tamit moy dafa am luñu ñu les minutes du magal nga xam ne li suba rek inshallah bu ngeen xolé dana am ci réseaux sociaux yi ño xamne le magal euh, à la minute mom lañ koy joxé nga xamne lol tam dañ koy and ak mbolém ño xamne dañ ci nek ba ci yeen ni and ko yeen ci information fu mu toll rek ñi di joxé ba mu mëna a yegg daal euh, légui nak tém yi nga xamne ci lañuy doxal. moo di bokk na ci exil au Gabon yoonu géej gi nag ren dañ ko ubbil benn barab bu yaatu moom mooy féete ne nga xam ne nit dana mën a ñëw xool ba noppi amu ñu mu mën a toogal wax ak ñoom laaj leen ñoo ñu tontu euh, gànnaar gi noonu lañ ko def mission sëñ bi noonu lañ ko def Touba noonu lañ ko def mu am benn thème bu spécial nag boo xam mi ngi jëm ci wàllu paix jàmm nan la sëriñ bi jàngalee wàllu jàmm ci biir liggéeyam bi te loolu di doon loo xam ne lislaam la loolu itam indi nañ ko xale jamono ji jaxasoo na ñun ñu bari seen xel mi ngi jëm ci leneen te fekk na bu ñu yemoon ci Serigne tubaa danañ xam ne luñ soxlawoo ci ak dal aku jàmm danañ ko mën a am loolu nag ñu buñ ko xamee it njariñ li mi ngi nekk ci ñu fexe ba ñu ñeneen ñi xam ko te ngir mën ko def faaw nga gëstu ko wane ko ni ko sëñ bi doxale waaw maanaam euh, ni nga xam ne noonu lañ doxalee mbir mi moo di xam nga fii espace la waaye espace bi day ànd ak ay support waaw support yi am na support htcom.sn am na support almouridiya point com am na support les minutes du màggal yooyu yëpp nag ci biir fii dafa am barab bu ne am ñoo xam ne dañ leen saytuloo lool léegi nag am équipe yu nekk ci biti di liggéeyandoog mboolem producteurs yi ba fii ñu toll ni di nga gis ne bu ci kanamee danañ nekk en contact ak ak ak ñi nekk kër Cheikhul Khadim comité d'organisation bi intique bi dañ nekk en contact ak ñeneen pour jéem a xool nan la ñuy fexe ba information fu mu jógee rek ñëpp jëlandoo dugalandoo amandoo waaw loolu mooy liggéey bi nga xam ne fi lañ toll te am nañ yaakaar ne comme nii ngeen ko defee rek moom mooy moom mooy mbir mi daal ànd ko ba mbir mi rafet rek waaw jërëjëf waaw kàddu gu mooy ginnaaw boo ñu sante yàlla sunu borom mm, julli ci yonte sallallahu alayhi wasallam ak Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sant ko am nañ mbégte ci démb inauguration bi vernissage bi nga xam ne président la république moo ko def ànd ak premier ministre ak ministre de l'intérieur waye surtout ci njitalul porte parole khalife général des mourides serigne Cheikh euh, Bassirou mbake bu serigne Abdou Khadre and ko ki nga xamne mom nak exposition bi ci loxom la nek mu serigne Atou Diagne di jorin dara Hizbut tarikh ñun dañ ñu denk rek la coordination la supervision la communication direction artistique yooyu nga xamne dana tax ñu jëmmal ko waye ñom ñi nga xamne ne ñoo ci bop bi ñi ngi len ci sante bu baax té melni gan yi ñi amone dem ci tour serigne bi gan ñi ñew nañ ci ak mbégte léegi nag ñun ñi ngi gën a santaat ak feddali suñu kóllëre ci commission intique bi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ci comité d'organisation màggal gi su commission boobu bokk ci culture communication boo xoolee euh, li ñu def ñoo koy ànd contenu bi benn la waaye nag yoon wi toll na foo xam ne ci support faw support yi bari ndax mu mën a daj mais collaboration bi doxin wi vraiment am na solo noo xam ne war nañ ko gën a promouvoir ndax loolu mooy liggéey bi daal waaw jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf